jullit boo gis mu feebar mu ngeeg ismulaay la sam jullit bu ne ci tukki boo gis ñun ñi ñëpp kenn ku nekk yàlla ak ñu moo ñaaleeg ismulaay la sam ñun ñuy toog jullit bu tukki xamoon ngeen lool jullit bu tukki boo gis buy ñaan muy am xam ngeen ne lii xew fii yëpp buñ ñu boolewul woon ak ismulaay la sam génn nañu réew mi bu yàgg hmm? hmm, gaa yi gaa yi bu kenn ku ne bu ñu rangoon fii rek joxe micro bi ku ne ñu wax la fi nga jaar fii ci réew mi boo waxee ba noppi dinañ ne xanaa du kii moo toog nii di wax dëgg wala dëgg fekk na mag a jaar ci ginnaaw am lu nu roof bi suurati ruumi ij ali nasaara indi bi tashiiri kal usaara yàlla ci barki suuratu ruum te suuratu ruum mooy rom waaye dinaa koy faral di wax ne leen rom gii ngeen di gis am na turandoo ci alxuraan sëñ Tuubaa ne bi suurati ruumi defal ma ci sóoratu ruum kon xamoon na ne waa këram danañ bari fi wala ij ali nasaara defal ma nasaraan waaye ban nasaraan la yow nasaraanu ruum nasaraanu ruum mooy lan italien <laughs> wala nit ñi amuñu dégg bi suuratu ruum yi ij ali nasaara ci barki suuratu ruum defal ma nasaraan yi nasaraanu ruum lay wax mooy italien indiya ci man bi tashir nga nooyal len kal usaara bañu melni ay bant ni nit di def bantam fu ko neex tek fu ko neex yekeuti fu ko neex jeme defal ma lol motax may faral jai ni gaay yag nañu jaay lo xamne tubab ni mu nga jaay ko lo xamne ne soxlo ko mu jënd ko ay eh, lolou yombul de le ne gis na ko tubab jënd dara ba mayat ko ko <laughs> ne ko ne ko soxla ma ko dama la dama la bëgg dimbali rek am teket yooyu ngay jaay noonu boo ko boo ko boo ko yóbbu woon Sénégal koo ko may mu delloo la ko te tabax nga ci kër yóbbu ci sa baay màkk yóbbu ci sa ay màkk dimbali ci say bokk tabax ci ay étage defe ne sa manoore la maga fa jaar de waaw léeg ma dégg ñu naan ñu naan bëyit bu siiw boobu muy wax naan bayit boobu muy wax naan inni uxaatibu nasaara fi ardihim ñu bari nga koy wax te amuñu ci teewlu sax seetluwuñu sax li mu wax sëñ Tuubaa dafa mas ñëw fi te nee inni ni man uxaatibu nasaara dinaa wax ak nasaraan fi ardihim ci seen suuf danaa fa taxaw wax ak du lii lii lii wax gënu ko rëy de lii lii wax gënu ko rëy de salle bi biñ koy tabax ñun ñoo tax kenn xalaatalewu ñu ci woon waaye ñu ngi fii bañ koy tabax yàlla ci boppam xalaatalewu ñu ko ci te ñu ngi fii di fi màggal yàlla ak Sëriñ Tuubaa kon Cheikh Ibra dafa raw lépp féete kaw lépp misaal nu loo xam ne li gis nga ngal la gaay bu kenn ne Baye Fall du ma Baye Fall ëpp naa wax Baye Fall outil la bu ñu fi bàyyi ku bëgg a dem ci yàlla bëgg am li nga bëgg rek nga yor melo woowu loolu rek lañ koy doyee loolu képp lañuy ñuy doyee Baye Fall waaye du ay mbiru kër na ci nit ñi noppalu Baye Fall nga gannaaw déedéet man kay duma Baye Fall sëñ Ablaye Fall Ndar buur yàlla ga dafa woote ne ku yaakaar Cheikh Ibra nag ma fekk carrière mag ñi ko fekke woon ñoo ma ko wax xam nga ko ko jëkk sëñ Fall suba teel ku ko fekke moo ma wax ci kër sëñ Modou Ablaye ne ma ñun daal dañoo jékki-jékki rek ñu ne jóg leen carrière baa ngi toj ñu ne lu xew ñu ne gaaw leen yee sëñ bi ñu ne yee ñu ne daw leen yee ko sëñ Fallu ñëw na sëñ Ablaay bañ ko ko waxee dafa fettax ñëw jaaxle ni sëñ Fall lii lu mu doon mu ne ko yow yaa woote yaa ne ko yaakaar Cheikh Ibra hmm, yaa ne ko yaa ko wax moo tax ma ñëw waaw ku yaakaar Cheikh Ibra sëñ lu ñëw ku ñëwul nag yaa xam <laughs> waaw euh, sëñ Ibrahima busu mook soxna aw buso ñoo bokk ndey ak baay waaw waaw góor moom doomam euh, doomam moom ma nettali ne ma sama baay gaa yi nañ góorgóorlu ci baax ci nettali yi ñu bañ koy def ay nettali nettali ñu nettali Cheikh Ibra man li ma gën a naqari mooy ma nettali dara ci Cheikh Ibra ñu defe ne damay waaraate man waaraatewu wax naa ko suñ Maamun mu sëñ Fàllu mu ne ma Baye Fall yéen rek a war a wax ma ne ko Baye Fall du waaraate amuñu jot gi Baye Fall day soññee mu ne ma laay lii de mosuma ko dégg Baye Fall Baye Fall amul jotu waaraate nekk fi naan la araf bi boo ko lonkalee andi ko fee génn ko fii def ko ne mu andi xàqu nga dugal laaw génne nasaara yooyu Baye Fall xamul yooyu Baye Fall dalay soññ loo xam ne boo ci awee rek am li nga bëgg mu jeex waaye ñun amuñ jot googu waaw loolu yëpp ak waane la rek moo tax Baye Fall amul jot googu Baye Fall day soññee rek sëñ Alaaji Bousso Tamba moo jur sëñ Fallou mii mu ne ma euh, sëñ Ibrahima Bousso sëriñ Touba da ko mos ba mu ñëw mu ne ma sama baay wax ko mu ne ma lii maa la ko Ibrahima miin nga Ibrahima la mu ne ko ah, déedéet wax dëgg yàlla dama koy gis nii ci kër gi rek waaye miinu ma ko de mu ne ko lée moom rek nga war a miin fexeel miinanteeg moom ndax seen kër yaa jàkkarloo ca àjjana nee na sëñ Ibrahima bu su amul bett ndax danoon moom daa defe ne Cheikh sax ay àjjanaam ak yooyu leerul hmm, xoolal loolu nee na keroog la ne ah mu way man nag li ma daj ci sariyaat <laughs> julli yeeg koor yi muy wird yëpp ndeke si mag sa ñoo jàkkaarloo kër ca àjjana ndeysaan nee na ma daal mu daan na ma na nga wëllëranteeg moom nee na ma dem kóllëranteeg Cheikh Ibra waa xam nga kañ la xam li sëñ bi wax bi sëñ Ibrahima Bousso nelawee ñu denc ko mu jàkkaarloog Cheikh Ibra <laughs> lañ ne ah ndeke lii la sëñ bi doon wax. waaye sëñ Ibrahima Bousso mu ma sama baye bim mu laata faatu mook soxna wo Bousso ño bok lépp de bim mu laata faatu bi mu ba tawat ji jàpp ko dafa maasale suuf si ne sa wa keur xol len li kunu ka Cheikh Ibrahima Fall loolu la muccu bind nelaw kep kuma ma melal ni Cheikh Ibra loolu la digle ها mel leen ni Cheikh Ibra melokaanu cheikh ibra nañu xamne moy melokan wi gën te kat ku ko yor do tor aduna do tor alakhirah xam ngeen loolu seigne cheikh fall neena ma ak talib xamon nga ne ab talib ken munu ko toroxal ma ne ko ah mu ma déedéet boo doon ab talib deug ken munu la toroxal xana lo ne ki ñi toroxal moy ki bëgg dara ja ma mas nga gis ku ñu fekk mu tok ci suuf ñoko suuf ci mané ko deet fal mune ma lolou lolou soko waxé nit nit ñi lay déglu yow lañu jappé ko doyé di ah xoola ku ñu fekkoon ñu tok ni mune eh yeen ñooñ tok ci suuf sof ngeen torop jóg leen suuf ci ngeen tok nit ñi dañ ko naan yow nit nga buñ joggé suuf si wax leen fu tok manam misal la dañ lay wan la nit ki bu waccé bopam kenn mënatu ko waccé té day yéeg té kat na ngeen xamné mbindeef mo gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena nit koo gis ñaari malayka la am ginnaaw raqib ak atiit am na ñaari malayka yu ne ci kaw ak ci suuf loolu la nit ñi xamul yonent bi nee na malayka mi ci kaw loo gën a suufeel sa bopp mu gën laa yëkkati malayka mi ci suuf loo kawe kawe mu xëcc nga jëm suuf kee yolomal noonu la ñuy def nit Baye Moustapha Fall guy ngeen nag dégg naa mun a Cheikh Ibra nee na yow ma yasduru naasu astatan li yaraw ahmaalahum ah doom na ngeen jëf ndax yàlla neen dinaa dajale nit ak ginne malayka wan leen seeni jëf daan waxul wan leen seeni wax de te fi mu nekk nii nit ñi defe nañ ne man ngaa wax ba tekki dara déedéet booy noppi rek muy jeex Cheikh Ibra Fall na yoonu murit balance la ah bascule déggal rek ki xam ne nee na bascule yoonu murit bascule la nee na bascule boo ci tegul boo ko tiimee di wax ren ba déwén doom ndax dana génne benn poids ñu ne ko déedéet faal mu ne mukk ah gars ngeen a gis ko wax ba tiim baskil bascule électronique yi ci pharmacie yooyu demal tiim ko nga xam ne ñam xob sax boo ko tegee mu génn ko waaye tiim ko di wax. danga wax bañ ne la génnal pharmacie bi dañ koy tëj. du génne benn chiffre waaye feuille képp boo ko ci tegoon mu ne la kii nangam milligramme la Cheikh Ibrahima nee na nag yoonu murit bascule képp la jëf rek lay génne du génne wax te léegi murit léegi dañoo bëgg a bàyyi loolu Cheikh Ibrahima defoon bëgg a andi nag yoonu wax rek bëgg a bàyyi jëf te wax ji rafetul te waxoon na lii yëpp. mag sëñ Bamba daañu ma sàmm lu ñu naqari ci yoon wi de agsi wuñu ci agsi nañ ci de te loolu mbat ma yeenu koy teg li mbat ma mu ne doomi kilifa gu jàngul tarbiyewul bàyyam faatu mbooloo ma dagg topp ko xamul fu mu jëm bay xam fu mu jëmale kenn hmm? agsi nañ ci de xanaa xamuloon dañu waroon defar benn dictionnaire wu Baye jël waxi Cheikh Ibra def ko ci def ko obligation murit bu ne di ko bu xëyee yër ko buy tëdd yër ko kon dara du la jaaxal daan ne maag sëñ Bàmba sëñ Cheikh Mbawar ma ko wax jamono yee aj nañ yoonu murit fu kawe foo xam ne fii gis nañ ñi ñëw la la Cheikh Ibra wax ne am na ñuy ñëw gis nañ leen waaye maag sëñ Bàmba gis nañ leen bu yàgg dañuy xeex ci yoon wi waaye aj nañ ko foo xam ne fii aw saan àggu fa <laughs> sëñ Cheikh Mbawar ne ma nak man ma ci tek sama waxi bop nak gis nga awsan boko sanni te du ag fa nga jëm boy bo juk fi nga taxaw ndax bu la fekke du bax ndaw <laughs> ndax bu delusé <laughs> ah, na bu neena na bu delusé du bax ci yow de ah, ah? yalla bo yor xéru mak nak sanni ko te agul neena jugul fi nga taxaw de day ñëwaat nee mooy jé ñiy jéem a xeex yoonu murit moo tax ab murit la Cheikh Ibra wax yoonam warta nekk ci kuy xeex yoon wi te ñun dañuy tardeel suñu bopp luñ defar ba dénk ko yàlla ba nga xam ne maanaam kenn mënatu ko yàq bu ci nit waxee ñaari baat nga naa mu ngi yàqu yow moom yaa defaroogul yow moom yaa defaroogul moo tax nga yaakaar ne yoon wi mënees na koo yàq kon nag ñun ñëpp nañ góor bu baax 9h ngi bëgg a jot te 22h la bi ah, li nga xam ne moom lañ ci dolli rek mooy ñu góorlu ba xam ne li ma doon waxtaan ak sëñ Mbàkke sànq rek nañu xam ne ak Baay Faal ak murit mooy nite doon nit ba noppi nite foo nekk yaa fay gën a foo nekk lépp luñ fay def. lu ci gën ci yow lañ koy xolé señ Cheikh Fall nañu wax nan ñu ab bay Fall kenn duko won naka la rek mo wara wone wane naka la Fall mom fuñ ko woyé ne ko du ni rek na xamni gën na bay Fall neena bay Fall dañ ko wara won dañ ko wara laaj naka la xam nga lutax Cheikh mustafa Fall ba ci doomi Cheikh ibrahim kenn ku ci nek eh, dem nga ba doomi Serigne Touba xamal la ne la. maanaam lii ngeen nekk moo gën lépp ah sëñ mu Fall Baye Ibrahima Mbodj nee na ma sëñ Fallou nee na ko fii ci néeg màkk ndokk bi nga santul Mbàkke boo santoon Mbàkke la jël nu witt ndax sa baax gi xoolal loolu mu Cheikh Moustapha Fall waaye nee na Cheikh Moustapha Fall ca taalibe bi nga ne ko ah sant Mbàkke daf maa jomb de ndax man maanaam Mbàkke Mbàkke bay bootu xàmmee ma ko sëñ Touba. léegi agsi nañ ci léegi la ma sëñ Mbàkke wax loo xam ne loolu sëñ bi doy na kéemaan ne ma Cheikh Ibrahima nee na sax leen ci njaam gi rek yéen sama waa kër di ngeen dem ba ñëpp di xëccoog yéen njaam gi <laughs> waaw di ngeen dem ba kenn ku nekk di leen xatal ci njaam gi bëgg a doon jaam ndax xam nañ moom rek kay jariñe léegi koo ay Baay Faal ndax doo bu dul loolu dara waaw waaw sa kër lu mu xumb xumb xumb boo amul ay Baay Faal Do raw sa dom bay nga dendal do dem fen dara nga dul am ya, <laughs> ay gaay yo xamne ne bo yekati ñu àggaleel la ko rek ngay am waye do am ay kat kon ni nañ gor gor lu baax bis bi yal na doon sunu tawfiq aduna ak alaxira ngeen ñaan ñun ñep ñu ñaan serigne Cheikh Jëmb Cheikh Sidil Muxtaar ñi fi nekkal serigne bi ak kër gu mëna doon nak kuy liggéeyal yàlla moo xam ci tarixa tijaan moo xam laayan képp ku nekk di xëyal yàlla rek nañ ñaan mu gudd fan ndax gis nga ñooñu ñoom la yàlla ruse jaam mi waaye réew yi amatul ñu mel noonu tas nañu réew yi nga xam ne xeex nañ seen nitu baax ba ñu daw wala ba ñu faatu ñu réew yooyu moom ñu ngi tàkk te dootuñu fay kon nag nañ góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax te sant yalla bu baax ci and gi ñu and ak sëriñ bi té roy Cheikh Ibrahima Fall kon bay Fall bar, no ngi sant sëriñ Gunda waxtaan nañ ko defe na ne kenn ku ne ci yeen xam na moy kan ci woyof ci gëm ci gore surtout lu jafe ci jamono ji ci takkook alquran ci amuk taalube néna leen am côté bo xamné bëgguma ko wax moy wilayam sëñ Gunda mom ñu mu xam nañ moy kan hmm? té loolu boko doon wax fi day nuru ay léeb rek nañu wax rek liñu mëna jariño ci mom motax ma yam fofu waaw waye yalla nañu yalla may dégg ak top té yalla nañu yalla nangul sunug talibé té lepp lu yaq ak talibé yalla loola gis yalla bu gis loola kon no ngi gërëm ñi fi tew ñëpp di sant ñi fi teew assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ilaha